Anyways.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 kalasoom sawaay yemul foofu de ndax ndaw si ne boo frère bi yegg na ba ci bés mu fekk ko ci néegam su mayku ba ne dung dal di jàkkaarloog moom waay ki lu mu bëgg ndaw si neen waa ji nag li mu doon def loolu yépp ngir bëggoon ko sàkku la waaye nag gannaaw tentative yu bari yu mu def mu avorté ci la ko waa ji dal di jàppale ab en ndaw sey wax de nee sax bés da doon fóot sb di boo frère bi dal di nekkoon nag déplacé bagage si muy fóotee ndaw si ne mu lank ndax xamul lu muy nduru ci noonu la ñu échangé ñoom ñaar ay kaddu yu ñagas ba mujj jàppante sb di beau frère bi daal di koy sànni bang ci tànk daal di koy gaañ waaye ana góor ak xeex ak jigéen ndaw si nag nee na bi mu jogee ci loolu ci la daal di wut ab certificat médical buy attesté incapacité temporaire de travail bu fukki fan teg ci dar di porte plainte waa ji bi nag ci kanamu yoon weddi na tuuma yi ndaw si teg ci kaw yaram ndax ndaw si def koo tuumal ne def koo duma ba noppi doon ko bëgg a violé ay waay waa ji nag nee na musul def ci ndaw si benn proposition bu indécente ndaw si day kàcc rek ndax nee na loolu it moralam mayu ko ko tey ngoram mayu ko ko li mujj am nag mooy sb di beau frère bi ñu tuumal yoon daf ko mujj daan ñetti weer yoo xam ne du ko tëdd waaye moom fu mujjee teeri doy na waara ah. alors que parquet bi li mu doon demandé mooy ñu tëj SB juróom benn weer yi muy tëdd kaso li toy war nag mooy ak tuuma yi ndaw si teg ci kawam yépp mbir mi mujjul fenn fu dul ñetti weer yoo xam ne boo frère bi du ko tëdd ma ne nag boo demee am na luy luus ci kaw wala ay kàcc am ca moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Cees romb na doy waar ab xale bu am 14 ans daal moo fa takk boppam buum ci baat dal di xaru <laughs> ëskay xale boobu nag nee nañu ab taalibe la moom daal la ñu gis ab néewam ca quartier Silmang bu Thiès xale boobu nee nañu ca këram la faatee boppam ndax dañ ko fekk mu pendre boppam te këram googu mu pandee boppam soreewul dara ak daara ji mu doon jàngee néewu xale bi na yóbbu nañ ko ca hôpital Amadou Sakhir Ndiagène bu Thiès li jaaxal nit ñi nag mooy ab xale bu am 14 ans lan moo ko war metti ba mu takk boppam buum ci baat daal di xaru xaru la wala dañu koo faat yàlla rek a xam waaye en tout cas réew mi moom am na yenn xeetu xaru yoo xam ni war nañ di ko caytu bu baax réew moo xam ne léegi ñoxor njaay rek ñu ne nit takk na boppam buum ci baat dal di xaru est ce que nag yi xew yi ci bëri ay xaru la wala ay crime la yoo xam ne nit a ko def ba noppi di ko masqué xaru en tout cas lu ci mën a am mooy police bu xereñ la ñu am kaaraange gu xereñ la am waaye wax dëgg yàlla yenn xeetu xaru yi war nañ koo xoolaat Sénégal léegi ñoxor njaay nit pàndar na boppam xaru war lu ci rax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz